ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi siiw seen bi di Likzo TV mais gars yi ñu déglu Adamo li mu wax ci Mame Bassine Thiam ak Amina Poté gars yi ñu déglu ko. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi gis naa ci interview léegi ñu ne Mame Bassine Thiam marié waan na Amina Poté man célébrité sénégalais yi tas moom daal tas amaat jëkkër kattante kii kattante kee mais man waxuma lool de bu ngeen amee jëkkër bu bees bu leen téemee di leen katt nii du ngeen xalaat ne fii àllu jaaroon na fi wala Moodu. sa sarab nday lii rek ngir yàlla ak yonent bi bu ngeen demee fi ngeen di seeyee toog leen danoo sonn ci heureuse men nee naa leen heureuse menace day dajji nga am surtout boo jëlee bu français bi heureuse yii lay dajji cottu nday lii rek boole ci nit ñi di yàkkamti heureuse menace am na jigéen yoo xam ne li ñuy wax heureuse menace waxoon nañ ko daaw ren ñëwaat na te amuñu jëkkër amuñu jëkkër ñoom du dégg sax heureuse day waaw vous êtes trop mignon vous êtes joli joli couple toog leen ngir yàlla ak yonent bi waaye yow kattante fii kattante fee lan sonn heureusement ku ci sëy kattal sa dañ toog fa dee fa